alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. mbokk yi télévision Diaspora 24 ñu ngi ni tay gi ci assemblée nationale du Sénégal Fassiyene am jataay ak ki nga xamanteni honorable député Amadou Mberisila Amadou Mbéry Sylla bu Louga président conseil départemental bu Louga tamit di président coordonnateur régional bi nga xamanteni mom moy jité jiite APR foofu ca Louga Mom lañu waxtaan ak ñu immigration waxtane politique waxtane taxawayu doomu Louga yi nga xamanteni ñom ñoo nek ci bitim rew ak mom en tant que kilifa gi nga xamanteni mom mo jité parti bi lan la lan la nal ndal la ngir population yi yi tamit émigré yi kon daal dem ci biir fekk ji ki nga ma anda ak sama caméraman Mbacke Mbodj Assalamu alaikum. Mbokki Setan diaspora 24 Aujourd'hui, nous ngi assemblée nationale du Sénégal Nous sommes nag euh, honorable député Amadou Mberisila Boulouga. bu Louga. man suis Amadou Mberisila, député à l'Assemblée nationale président du conseil départemental de Louga coordonnateur régional et départemental de l'APR au niveau de la région de Louga. monsieur Silla, comme nous nga dit, l'APER, APER, Euh, mouvement la parti la nga nekk ci di ci liggéey ci région de Louga waaye région de Louga di région boo xamante ni dafa bëri ay euh, ay émigré rawatina ñu nekk ci biti di la seetaan ci diaspora 24 tey jii yow en tant que coordonnateur parti bi foofu ca Louga yan xalaat nga am ci Louga waaye tamit nga nekkoon ko xamante émigré nga won dund ak li nga xamante mom mo moo nekk ci bitim rew actuellement aduna sepp yëpp nekk ci crise rawatina ci bitim rew yow tay ji en tant que élu en tant que itamit responsable yan xalaat ak ak and euh, ak tënk stratégie nga am yo xamante pour mu jëm ci émigré yi. merci beaucoup ma ngi kontaan ci laaj bi ngeen ma laaj parce que ma ngi dëkk Njambour nekk un ancien immigré bu télévision immigré yi ñëwee di laaj un ancien immigré dama ciy kontaan di wane ni immigré yi compétence bépp ngi ci bio mi ci biir immigré yi moo waral j'ai fait l'Italie j'ai fait la France j'ai fait l'Allemagne j'ai fait la Belgique j'ai fait toute l'Europe à un moment donné nag ma taxaw ni il faut ma dellu sama réew pour liggéey pour sama réew ma def retour en zone ñëw nag bi ma ñëwee ci immigration

parce que ñun xam nañ ci famille bi ñu bokk famille bu yaatu la bu yaatu ginnaaw mu dugal ma ci politique pour que nag li nga xam ni moom lay bañ doon ko bañ ma ni naa xeex loolu te fi ma ko mën a xeexee mooy ci politique bi moo tax may ñaan sama mbokk immigré ñu leen maa ngi leen di sant leen gërëm di leen ñaanal ci foofu mu nekk leen ñaanal nag ñu xalaat aussi na ci réew ndax gis nañu crise bi am ànd metti na crise bi fépp la waaye ma leen di ñaan ñibbi si Sénégal géem new, am lu taxawal ci biir Sénégal lool buñ ko défé dana ma neex déjà amna immigré yu nga xam ni ñu ngi commencé xalat ni war nañ mën man lima xalatone moy dina dem uti fond au niveau de l'extérieur mais suma ma liggéey Sénégal la koy tabaxé motax très tôt ma ñibbisi au Sénégal yor fi sama entreprise ba dugg ci politique ba yalla defit parti bima de nekk di APR bi ko président Macky di taxawal je suis le premier bu nek ci région Louga bu ko tàllal loxo bi ma ko loxo mu coordinateur régional man suis parti bi Linguère ma parti bi KMR, ma parti bi département Louga diko mas fi and ko nak wa Louga bolé ko immigré yi ma candidat di don sen way ñu ma ba Macky Sall fall kon ma ngi leen di ñaan pour nous la bu ñu mën a taxaw ci liggéey bi pour Sénégal mën a jëm kanam. waaw jërëjëf euh, monsieur Sylla waaye xam nga ni émigré li ko gën a yitteel bokk na buy dellu ci si Sénégal mu am euh, kër gu baax gu mu dëkk waaye tamit am sécurité ci bu investir investir ci loobu xamante ni lu ko mën a lu ko mën a jural dara la yan anam ak yan xalaat nga am ci émigré yooyu tey jii boo leen woowee ba ñu ñëw ni président ñëw na ñëw leen wuy si ma suñu ñëwee yan fan nga leen di teg lan nga xalaat def ci ñoom euh, ñu ngi doon wax problème mu oto yi yi nu wàññi woon âge yi waaye mel na ki léegi ay problème amaat na ci ak yu mel noonu yan xalaat daal ak nga jàpp ni ci yoon woo xamante ni ñoom tamit dinañu mën a dellu si am ci luñ jàpp mën a liggéey toog ci réew mi. ñun ci région Louga bi ñu toogee xalaat ni jafe-jafe immigré yi bari na président li mu njëkk xalaat bi mu yëgee ni trente mille immigré ñi ngi yeewoo ci région Louga li mu njëkk xalaat mooy defal leen bureau passeport foofu ci département Louga ci police Louga léegi. 48 heures nga am sa passeport dañ daan jógee Louga ñëw Dakar ba dem Dar ba dem Tivaouane loolu président xeex na ko ba jeex na léegi nag immigré yi dafa am solo ndax immigré 900 milliards lañ daan par an fii ci biir Sénégal 900 milliards Bobo crise bi amagul waaye bi crise bi amee nag maa ngi leen ñaan ñu parce que président de la République tekna na ay mécanismes ndax président de la République tekna fi APEX, agence nationale pour la promotion des investissements Koku mi ngi dimbali immigré bo ñewé sa entreprise dañ la ko yombalal do ci fay dara nga am sa entreprise do ci fay te deux jours nga jox sa entreprise président bi mu wëlbati teg na FAISE fonds d'appui à l'investissement pour jàppale immigré yi fonds boobu je pense que immigré yi ñu ngi ciy jot bu baax a baax a baax bu ñu jógee foofu président teg na ADPME agence de développement des petites et moyennes entreprises kooku daf ko teg aussi pour immigré yi ku ñëw am sa projet nga mën ci liggéey président créé ANIDA mooy ex-REVA agence nationale d'insertion de développement agricole koku aussi bari na mool yi nga xamni ñew nañu te bu ñu ñëwee mën leen jàppale teg leen ci yoon ba ñu bénéficier wu ci fonds teg na aussi fonds JIP e fonds de garantie hein bo xamantene aussi mën nga ñew ñu lebal xaalis ba paré garantie la jël xaalis garantie la ko ñu lebal xaalis sans intérêt amna na Plastri plateforme d'appui à la diaspora c'est un mi ngi fi mu ay mécanisme du président Tek pour immigré yi mën a ñibbisi mën a daan seen doole fii en 2014 immigré yi def 810 projets mais bu ñu xaymaa 810 projets 378 projets mooy yi nga éligible 378 projets yëpp financé nañ en en hauteur de 2 milliards 885 millions donc le président Bayoulen nous aussi au niveau de notre département au niveau de Louga avons nañu xalaat parce que nous avons organisé un forum pour les immigrés forum boobu dañuy dajale doomu immigré yi doomu njàmbur njàmbur yi a ci àll bi ak ay bailleurs de fonds ñu bokk toog pour voir naka que nous def pour mën leen pour que nous puissions appeler toog jàppale leen ce projet le conseil départemental a initié initié aussi ben fora pour les immigrés en 2015 fora boobu nous permettre nous nous déplacer dem en Italie dem en Espagne dem visiter toute l'Europe rencontrer les immigrés pour mën len teg pour ñu mëna ñëw mëna djublu ci liggéey bob ñun nak ma ngi leen di ñaan ñu ñëw bu ñëwé ci niveau conseil départemental bi nga xam yalla def na seen un ancien immigré pour un immigré Le lépp a ngi ci je suis un ancien immigré ma ñëw à la source xeex ba à ci station bi ma donc les futurs ministres sont immigrés. immigré les futurs directeurs généraux ñi ngi immigré les futurs députés aussi ñi ngi ci euh, immigré yi ngi accompagner le président de la république qui fume beaucoup de mes amis, nous sommes parmi ici, c'est normal mais bon c'est qui va logement, barne longa hein nous, nous avons un partenaire Espagne, pour faire des logements, euh, euh, sociaux pour les immigrés et pour les populations, dernier défendre, hey, F2, deux chambres salon à 5 millions, trois chambres salon à 6 millions et quelques, quatre chambres, 5 chambres de bientôt, les Espagnols sont déjà au Sénégal. La semaine prochaine, ils vont venir à Louga. Mais ñaan sama mbokk képp koo xam ne soxla nga ci kër yi su fekkente ne am nga sa terrain Nous, nañu pour tabaxal en 15 ans par mois bu dee F2 b vous avez 30 quelques mille F2 b 40 quelques mille bi ci avez cher muy F5 b vous 110 000 ou 90 000. donc may ñaan sama mbokk yi sommes au Sénégal affaire Sénégal le président remercier le président de la République. Nous hôpital digne conseil départemental le président de la République on aura un deuxième commissariat commissariat bi ñu am hôtel de ville ba un deuxième commissariat nous c'était au niveau de l'eau nous village yooyu ko wër ndox mi dafa safoon xorom kenn mënu ko naan président fexe na ba dugal fa ladde de guerre bi te village yi ko wër yëpp dañ leen branché ci ladde de guerre bi Njaañ ndox mi dafa safoon xorom ñi ngi jabal nañ fa équipe bu nga xam ni ñi ngi désaliniser ndox mi di tàqale ndox mi ak xorom si pour mbir mi jaar yoon président yemul foofu dafa jël six forages yóbbu ko dans le Sieur la commune de Sieur ndax bu njëkk foofu fa jur gi nekk Louga bu ñuy wax sàmm Louga la ñuy wax président war na fa créer juróom-benn forage yu nga xam ni bu jëkk jur gi ñoo daan dem di uti ndox mais président xalaat na yërëm jur gi ni mu yërëmee nit ñi fekki jur gi fekki nit ñi defal leen forage yu nga xam ne léegi fa jur gi nekk ci àll bi fa la leen di defal ndox mi ñu mën a naan ndax bu jëkk da ngay dem 10 kilomètres naani bala ngaa ñëwaat mar président ci xalaatam bu rafet xalaat na dimbali éleveurs yi dimbali

bu ñu cétait aussi Louga la de guerre bi fa lay di jox ndox Dakar ak tout le Sénégal ñu waxone président ni ko ñu comprendre village yi nga xam ñoo wëg la de guerre bi ndox mi di fa di dem ba dakar ñom duñ ci naan président indi ben projet bu nga xam actuellement les 150 villages yi nga xam ñoo wër Lac de guerre bi actuellement ñu ngi leen di brancher ah non tek na ay financement pour les jeunes tek ay financement pour les femmes électrification rurale bi booy seet commune bu ci nekk actuellement def nañ fa 15 villages yu nga xamante branché nañ en électricité actuellement ni may waxee yow ñooñu dañ leen taal ci 2015 bi mu des nag yeneen villages yu nga xam ne jël nañ leen pour dolli ko ci 2015 bi pour ñu war leen a branché euh, en électricité bu ñu ñëwee ci wàllu route yi xam ngeen ni boo daan jógee Louga di dem Kër Momar Sarr da nga fa def 3 heures de temps léegi 30 minutes mën nga jógee Louga dem Kër Momar Sarr boo jugee foofu Louga lew na defar nañ ko booy seet bu Louga daara defar nañ ko Louga euh, Ndoyeen defar nañ ko ndax bu njëkk dem Touba dañuy dem ba wëri président de la République taxaw na ci ba nga c'est un mauvais souvenir donc dañuy wax ni gàccee ngalaama président de la République ñuy ñaan nag immigré yi nañu ñibbisi ànd ak président ànd ak seen responsable ñu ñëw ñu àndandoo gën a dooleel président bu nu seetee président yemul foofu ubbi nañu benn collège de si la bu fa benn collège pour Warak te bari na yeneen yu nga xam ni ay financement la ak ay mbir yu nga xam ni région Louga département Louga bénéficier na ko ci nguuru président te nag yàggoon na loolu lépp ñu koy jooy mu mënuñu ko am di tax loolu it président day xaritu immigré yi ndax bu jëlee un immigré bokk ci ñoom def ko député def ko président conseil départemental ah, maa ngi ñaan suma mbokk immigré yi ñibbisi jàppale président ba ñoom it poste de responsabilité yi yi ci lañ bokk ndax kuy dugal neuf cent milliards cim réew defe naa ni ci réew moom ca nga bokk nit ñi ñëw dooleel ko jàppale ma ànd ak ñoom te nag den wax ni maa ngi waaj benn tournée économique bu nga xam ne dama koy commencé ci département Louga ñëw nag en Italie waxoon naa ko léegi ci forum bi ñu war a pour que immigré yi le projet du président de la république xamit le projet du conseil départemental parce qu'un ancien immigré bu vous avez ba toll ci station y a d'autres honorables députés qui sont à l'étranger Il y a d'autres présidents de conseils départementaux qui sont ni à l'étranger maa leen di ñaan comme nous, doxatu nous ñibbisi accompagner le président de l'équipe gën Amadou Mberisila. Je xam naa ne moom tàmbali nga al président moom <laughs> bu baakha a waye nak bu fatini fàtte euh, élection yi ñi ngi ñi ngi ñi ngi ñëw ñu ngi jege si 2017. Euh, président gis nañ bu baax a baax ni nga xamante ne mën nañoo wax sax ni émigré yi ñoom ñoo ko ñoom ñoo ko fal ndax da wooteel nañ ko massivement ci euh, en 2012 bi muy jot ci réew mi mais ñoo ñooñu tey jii ba tey rek sama souci mi ngi ci émigré yooyu nga xam ne tey jii ñoom ñoo fal président am yu bëre yoo xamante ni président digoon na leen ko am na yuñ ci gis am na yuñ ci gisul euh, ci loolu euh, ndax yéen nan ngeen di waajalewaate ngir falaat président ci ci ci bitim réew ak ci ndimbalu yi boo déggee sànq ma wax ci wàllu immigré yi ma ni ay nitu président lañu ñoom it nitu président lañu ndax daaw bu ma gisee élection présidentielle yi tendance bi wàcc ñu joxe résultat yi au niveau euh, de l'Europe boobu la ñu xam ne président gagné na élection yi ngir taxawaayu immigré yi ma leen di ñaax nag ki taxawaay boobu mu taxawoon démb ak barki dem ñu gën a taxaw ci wetu président du question sa campagne c'est une campagne dañu wax rek réalisation nga xam ni boo tegee sa baram gis ni lii kat ci ñaari at ñett yi président nekk bopp réew mi def na ko ci muy regarde. Nous, gàtt mu mu yéeme nag mu Mais may ñaan na ko ñëpp jàppalewaat man am na tournée bu ma war def en Europe déjà le jour de la tabaski passé mi ma fait en Genève association immigré yi nekk foofu ñoo fa wowoon ma waxtaan ak ñoom pour ñu gën a taxaw gën a jàppale président te yàlla def na nag noonu ma ko amee Genève noonu laa ko amee Italie noonu laa ko amee France noonu laa ko amee Allemagne noonu laa ko amee Belgique ñëpp a ngi may woo danaa def tournée bu nga xam ne danaa ànd ak ñoom sensibiliser leen ñu gën a jàppale président président gën leen jàppale yàlla def na au niveau des élections départementales dama bëgg wax ni président bu gagné élection yi immigré yi ndax immigré yi am na ci ñu nga xam ne ñi ngi à l'étranger di yónnee xaalis seen mbokk yi naan leen pour ñu votel loolu bi ñu koy def mooy nañu votel président kon ñoom mënu leen fay moo tax ren ci élection yi bi ñu ma defee tête de liste ci élection locale yi maa ngi am fanweeri junni baat ak juróomi téeméer lu topp muy ndam lu rëy loo xam ni kenn mësu ko am foofu ci élection loolu su ma ko amee immigré yi ñoo ñaax seen famille pour ñu jàppale ma jàppale président de la république li tax ma ni bu la élection présidentielle premier tour des élections ma doon coordonné parti bi mais ñi ngi amone 21400 voix au premier tour ñu def ma tête de liste mandataire dans le département mu yóbbu ko fanweeri junni ak lu top yok ci fukki junni baat kooku dama koy santé immigré yi nga xamantene ne xam nañ seen mbokk laa. conseil département dana am fonds bu ñu jël am fuñ ko loger ñooñaat doli ci xaalis ñu mëna jappalé immigré yi ci seeni projet y aussi une division division d'entrepreneuriat en relation avec les immigrés créé département Louga ndax def région Louga def ko département Louga te immigrés immigré la immigré Sénégal immigré au immigré population bi Fall? fi fal te donner ak ñu falat président en 2017 té loolu yomb na leen ndax ñoom nak ñoo nekk fa di liggéey di yónnee askan bi ci dund te laaj ñu kenn dara yàqalu ñu kenn dara li leen mën a jàppale mooy oto yi nga xamante ne waxoon nañ ko fi da nga xam ni président wàññi woon na âge bi bari na immigré ñëw ni ma ñun de suñu oto yi ñu ngi koy santé président oto bii ma dawal ba indi ko fi su ma ko indee presque bees la te âge bi am na nu mu doon demee du ma ko mën a indi xëy nag ñoom it ñu ngi ñaanaat président gën a wàññi âge yooyu ñu ngi ciy liggéey di ci xool naka la ñuy def pour jàppale immigré jàpp leen ci logement jàpp leen ci financement te bari nag def nañu retour en zone ñu ngi ci mbay mi booy seet war na mat un mois def naa fi benn partenariat avec l'FAO ci ndimbalu président la République ñu financé fa soixante-dix périmètres ay baykat mbayum noor bu may seet la ñu fa financé mën naa wax ni 40 pour cent ay immigré lañu ñu ngi def retour à la zone ñu ngi bay jox leen jiwu jox leen engrais jox leen urée jox leen matériel bi ñuy soxla jox leen lépp comme nawet bi yàlla dafa defoon ndox mi wàccul bu baax comme ni ko séntu woon ci département Louga ci région Louga moo tax ma initié en tant que président du conseil départemental pour FAO mën a jàppale sunu mbokk yooyu may ñaan président de la République mu gën a dooleel immigration bi gën a dooleel immigré yi ba bu ñu ñëwee fonds yi nga xam ne teg na ko ñu gën leen ko yombalal bañu man mën ca jot pour ma def sa liggéey ñu mu waree famille immigré donc di wax dal man ca la bok muy sag nak ci ñoom ñu contane ci parce que un ancien immigré bu togué ba tollu fi xam nañ ni immigré ya fa dess intellectuel yaa ngi ci biir ñepp ngi ci biir nañu ñibbi si réew mi ñoko bok ñu ñew jël seen place pour jël mel réew mi kanam man nak loolu laa gisoon très moo tax très tôt ma ñibbisi toog àggale xeex bi fii ba yàlla def ma di ma def fii ma toog it maa ngi fi toogal askan bi maa ngi fi toogal immigré yi bu ñuy seet immigré yi nga xam ne ñu ngi nekk euh, Lyon xeexal naa ni fii ci assemblée ci problème yi ñu fa amoon ci problème mu euh, am na daal tubaab bu fa nekkoon nekkoon ak ñoom te du taxaw seeni mbir xeex naa ci jamono yooyu ba mbir moomu réglé nañ ko te fenn fu ba dégg problème lu jëm ci wàllu immigré yi pare naa waxtaan ci ak président waxtaan ci au niveau de l'Assemblée national Euh, fi ñuy jeexalee rek mooy dellu siwaat nag ci Louga gi nga xamante ni moom nga dëkk Louga bu ñu xoolee dëkk bi dañuy gis ni euh, ak ni mu am ci ay émigré dëkk bi ni mu waroon a yëngatoo ci wàllu activité économique ak investissement dafay mel na des na boo duggee Louga dafay mel na dëkk bi daal euh, yënguwut ci wàllu ci wàllu économie yow ngay jëwriñ ci jiite wàllu conseil départemental bi yan xalaat nga am ngir suqali Louga ngir Louga jësaat boppam waaye tamit développer Louga li nga xamante ni moom la ñu xamee woon Louga muy aada ak ak culture ak yu mel non Louga est la capitale culturelle du Sénégal Louga est la capitale culturelle du Sénégal pendant des décennies yalla mo def loolu culture da nañ ko jël diko à l'extérieur sun troupe yi génn di dem di évoluer mais yu bari amatul au niveau du conseil départemental xalat nañu pour immigrer yoy meuna a

di dellu si te président dafa jox maana dafa jox ité artisanat bi ba nga xam ne le drapeau le grand prix du chef de l'État nga xam ni dañ koo excluroon ci mbir mi amatuloon taxaw nañ ci assemblée nationale ba liggéey ci liggéey bu nga xam ne bi mu àggee ci président président dana indiwaat ci ndimbalu ministre bi président dana indiwaat le grand prix du chef de l'État de l'artisanat kooku dana tax artisan yi gën a xarañ

mooy dañ leen jàppalewul woon pour teg ay mécanismes yu nga xam ni dañ ci mën a jaar pour mën a ubbi seen entreprise pour mën a liggéey yi mën a limal yëpp nag léegi loolu foofu laa jëmoon bu njëkk immigré li mu xam mooy bu ñëwee jënd benn terrain daal di tabax di louer te loolu dana ko jariñ moom tuuti mais am na ci investissement bu mu doon def dana ko gën a jariñ Louga booy xool amul benn usine usine tàngal moo fi nekkoon tëj na Sotesca moo fi nekkoon tëj na. ak leen leen ñi ngi xalaat nag immigré yi bu ñu ñëwee ci forum bi ñu xalaat yi ñu pousser leen jàpp leen ba ñu mën a am ay entreprises yu nga xam ne dana suqaliku ci Louga daanu ci am plus que lu ñu doon am ci location yi ba pare askan bi daan ci mën liggéey te loolu président taxaw na pour accompagner ñu ci pour que Louga développé ñun ñi nga xam ne yàlla def na ñoo nekk ci bopp conseil départemental pare nañu aussi pour accompagner leen ci lépp lu nga xam ne moo jëm ci wàllu papier moo jëm ci wàllu administratif ba bataille ñu taxawal leen ko boole télévision Diaspora 24 ñuy dalal honorable député Amadou Mbéré Silla bu Louga di président conseil euh, départemental bi waye tamit di coordonnateur euh, régional bu parti APR fofu ci Louga euh, fi ñuy jeexalee rek euh, président Amadou Mbéry la mooy nag léegi initiative bi yu mel ne télévision diaspora ay immigré jël ko taxawal ko yaa ngi waajal tournée économique xam naa sax du ñàkk ni di nga jaar foofu ci siège yu jëkk jëflante yi tamit ak suñu mbokk Alioune Ndiaye mi nga xamante moom mooy jëwriñ ji waaye tamit kii xam moo nekk fii Sénégal tamit di sa mbokk Mbacke Mbacke mbooj euh, moom tamit di émigré waaye. état bi gouvernement bi lan la taxaw lan la paré pour appeler initiative yu melni nga xamné télévision diaspora surtout ci sen walu communication fofu ci bitim réew ndax xam nañu émigré yépp ñi ngi sétane diaspora 24. ci question bi me posé bima ma sétane diaspora 24 sama xel dafa dem ci France 24 mais si ma ay immigré immigrés, ko xalaat moy li man wax

Nous menons structure yu Diaspora 24 mu jàppale leen doole leen ba ñu gëna taxaw gëna xarañ ndax nak immigré yépp nak mom la sétal té bu leen à travers la télévision euh, Diaspora 24 jàppale la immigré yépp ndax sen télévision la ñu nit au niveau de l'Assemblée au niveau du gouvernement lepp lu nga xam Diaspora 24 amna ko comme soxla bis bu nu ko déggé lepp luñ ci war ci digganteem def tampon diggante ñoom ak l'État dañ ci dox luñ ci wara dox ba mbir mi gëna ndax li initiative bu rafet la dana tax légui bu ñëpp wàccee ñu ngi toog seen kër yi muy initiative bu rafet may wax ni le responsable qui est en Italie bu yàlla defee jamm ma agsi fa naa visité barab bi xol ko déglu leen déglu seen doléance yéen ñi ko nekkal Sénégal aussi en l'occurrence monsieur Mbacke Mbodj nga xam ne moom it mooy li ma wax rek immigré la dem liggéey bi muy jógee fii di dem di immigré yi xamul woon ni dana mujj wëlbatiku nekk ci lii moo xarante bi immigré yor dama ne lépp ngi ci ñuy remercier Mbacke Mbodj di remercier équipe bi nga xam ni ngi Sénégal yëpp di wax ni président na leen jàppale di wax ni président nañ ko gën a may ñaan seen télévision bi yàlla na jëm kanam maa ko ñaan bu déwénee fii ñu koy séentu mu weesu foofu di ñaanit balaa yàgg président

jërë ngeen jëf euh, mbokk yi lii mooy jataay bi am solo bi nga xamante ni seqoon nañ ko ak euh, Amadou Mbéry Sylla euh, yaakaar naa ni tontu na seen i laaj wala àdduna ci li nga xamante ni moom boo doon seen xalaat par rapport ak ni nga xamante ni mooy liggéeyam foofu ca Louga waaye tamit mébét yi nga xamante ni président de la République maître Macky Sall am na ko mu jëm ci immigré yi incha allah nii rek la ko télévision Diaspora 24 di jàppoo di ànd ak yéen danañu fexe ba gox bu nekk ñu am jataay bu mel nii ak député. fa nga xamante ni moom moo dëkk foofu ngeen euh, mën di jàkkaarloo moom mu wax li nga xamante ni moo aju ci yéen seen seen i préoccupation képp koo xamante ni bëgg na indi yóbbante ay laaj ci émission bi na euh, yónnee laajam ci adresse email boobu di génn ci suufu écran bi ñi ngi leen di sant di leen gërëm di leen dig daje incha allah beneen jataay ak beneen responsable boo xamante ni mu ngi nekk ci gouvernement bi wala ci société civile bi ñi ngi leen di sant di leen gërëm ko doon présenté Mbacke Mbocc nekkoon ci caméra bi jërë ngeen jëf ba beneen yoon.